ñoo ngi leen di ñaan bu fekkee video yi neex na leen nga bës j'aime bi bu fekkee abonné go nga bës subscribe après nga daal di bës touche de notification bi ngir nga mën a am bépp vidéo buñ yees buñ dugal jaajëf. Salut chers membres, abonnez, continuez-vous davantage, abonnez sur BFB officiel. tey les producteurs de groupe BFB officiel ñu ñëwaat àndaat ak yéen comme ni ñu ko baaxoo di defee ci li ñu naan question et réponse tey suma gars yi dañuy def benn vidéo boo xam ci ni defoon nañ ko mais bi ñu koy def dañ ko boole noonu ak ay astuces yu bari ba tax nañu bari seetaanuñ vidéo boobu en plus gars yu bari ñu ngi ñuy poser la même question moo tax tey ñu ni lu tax duñu reprendre question boobu daal koy tontuwaat. question boobu moo nekk lan moo nekk nan ngay def ba xam code wifi c'est-à-dire nan ngay def ba xam code fii dañ leen wan deux méthodes yu bokkul cest à dañ leen wan ñaari méthodes yoo xam ci ni ñaari yoon yoo xam ci ni nga fa jaar pour mën a xam code wifi mais dañ leen di wax leen na benn astuce boo xam ni dinañ ci def vidéo spécialement yaakaar nañ ni vidéo bii di ñëw moom lay doon. assise boobu moo nekk lan moo nekk yow sa wifi kenn du ci mën a connecté ku dul wala ñu dul wala nekkul saa à dire képp koo xam ci ni yow autorisé woo ko rek moom du mën a connecté ci wifi boobu par la force nag laa la wax amul beneen méthode boo mën a jaar ci man li ma leen di wan ba kooku mën a connecté ci wifi saa nga autorisé loolu moo nekk la c'est-à-dire yow am sa wifi nga bañ kenn connecté ci saa nga autorisé ko cest di yow képp koo xam ci nii joxoo ko ndigal rek pour mu connecté moom du connecté ci sa wifi loolu nag par la force la li ma leen di wax amul beneen solution boo xam ci nii nit kii dina ko mën a def pour connecté ci sa wifi mais suma gars yi c'était une parenthèse on ferme les parenthèses les dañuy dem ci vidéo bi au bi vidéo boobu moo nekk vidéo bi di ñëw te xam nañu dana gën a yaatu dañu ko expliquer ndax boobu dina intéressé ñu baree baree baree baree dana intéressé ñu bari les gars tey dañu dem ci vidéo bi ñuy taxaw jug vidéo boobu moo nekk la moo nekk yow da nga bëgg a xam code wifi yi code bi nag yaa ngi ciy connecté code wifi bi yow yaa ngi ci connecté les boo ciy connecté yow tu la possibilité de savoir le mot de passe c'est-à-dire yow mën a xam mot de passe yi ci deux manières légal gars deux manières yooyu lañ war nag benn bi moo nekk lan moo nekk dafay am benn application boo téléchargé les gars da ngay dem mooy ci Play Store vidéo bi nag mën naa bañ a gudd dañ leen ko defal rapidement les gars après nga dem ci barre de recherche bi après lan ngay tàppee dangay ngay tapé QR QR ngay tapé boo tapé QR après da ngay bind scanner genre yaa mu gën a xam soo bind scanner rek mën nga bës wifi mën ngaa bind wifi yaa lii soo ko bindee rek daal di ñëw bu ñëwee après nga télécharger yëpp dafay normal suma gars yi dafa léegi application yi dafa bari te daanaka yëpp yu dafay normal mais dañ leen wan la qualité comme suma gars yi ñëw nga fii indi na la lii ba pare indil na la lii lépp ba pare suma gars yi bii nii noonu la baaxe suma gaay yi bii bu baax la mais ñu yoruñu boobu dañ leen doon bi ñor yëpp dafa baax yëpp c'est tout parfait les mais da nga ñëw ci yii nii benn boo si ñëw rek daanaka dafay jàll ñun téléchargé nañ bi ba pare bu ñëwee téléchargé benn boo bu baax na après nga dugg ci boo ju duggee suma gars yi lii la lay indil lii nii la lay indil mais suma gars yi yow téléchargé nga application bu pare boo téléchargé application bu pare man nga def sorti suma gars yi sorti nga ba pare dafa am lenn looy chercher loolu mu nekk lan mu nekk yow da xool ba xam yow am nga kuy QR moo nekk affaire boobu ñuy scanner les gars comme si que yow boo nekkee xandeer affaire boobu ngay photo loolu moo nekk QR r léga après ñun dañuy dem suñu wifi xool ba xam ñun am nañ QR après yow da bës wifi bi nga daal di téye pour nga mën a am accès ci biir wifi bi ngay connecté comme suma gars yi dafa am ay ay ay différentes manières les comme suma gars yi téléphone yu bari dañoo wute mais yow leen laa lay conseiller boo ñëwee ci wifi bi wëral leen wëral leen. moo nekk lan ñun suñu bos suñu cas da ñëw ci mane saaru paramètre bi boo ñëw ci paramètre nga ñëw mooy code QR boo ñëwee code QR saa yëpp suma gars yi gis ngeen suñu code QR moo nekk nii ñun dañuy enregistré image bi boo ko enregistré day daal dugg ci biir téléphone bi su fekkee on enregistré da nga koy capturé soo capturé nga dagg ko ba nga xam ci nii lii kase mooy feeñ les gars après ñun def nañ loolu ba pare lañ bëgg a xam code wifi bi dañ ko bëgg xam carrément suma gars kon instant eh, bi ñun capture nañ ko wala enregistré nañ image ba pare da ngay dem mooy ci application bi ñu téléchargé ba pare soo ñëwee ci application pare da ngay dem mooy nga chercher photo yi c'est-à-dire ci galerie bi après ñu bës. galerie soo bësee galerie pour après ngay chercher photo bi nga xam ci ni moom nga capturé ñun photo bi lañ capturé woon wala moom lañ enregistré woon après yow da nga koy daal bës soo ko bësee suma gars yi vous le voyez le suma gars yi code baa ngi code baa ngi mais nag fii dama leen di conseiller leen su fekkee yow da ñëw instant bi yow da ñëw ndax code yi dañ koy ni ñu ko bindee dafa garaaw trop mais su fekkee da ngaa bañ a ci bind bi nan ngay def da nga ñëw fii ñu bind la copier copier le mot de passe ngay daal ñëw mot de passe bi copier na après ñun dañuy effacer mot de passe dugal comme gis ngeen nañu bës oublier comme instant bi code dañ na code bi dañ na juif bi nag dañ ko xaw a moo loolu moo tax daanaka mais suma gars yi comme vous le après boo ñëwee ni yow da ngay ñëw collé ngay bës c'est-à-dire xam ñu leen ko boo ñëwee nii dangay bës mooy fii nga téye soo bësee téye dana la indi collé après nga bës collé après nga bës connexion soo bësee connexion da daal di ñëw automatiquement au fàtt naa solo je l'ai oublié oublier am nañu ko réglé woon moo tax après ñun dañu adresse ma téléphone bi genre yéen ñu gën a xam yaa ngi seen dafa nuñ jëre loolu moo tax ñu ngi tu bu baax ci defu boobu noonu mais mooy loolu comme gis ngeen en tout cas code bi ñu def jàll na les gars ah code bi ñu def jàll na suma gaay mooy loolu kon boobu premier astuce bi jàll na pare deuxième astuce bi moo nekk lan mu nekk yow da nga am code bi mais amoo code QR bi c'est-à-dire yow bëgg nga xam code bi mais amoo astuce boobu ñu la wax dañuy dem ci deuxième astuce bi da dem mooy ci Google Chrome boo demee ci Google Chrome da ngay ñëw ci barre de recherche bi boo ñëwee ci barre de recherche bi da ngay tapé da ngay tapé 192 point dañu bu leen bu leen bu leen àggale bind nga moo gën ndax dafa am loo xam ci ni boo àggalee rek du baax 192 point 168 point 1 point 1 suma gars yi lii nga daal di bindi soo ko bindee pare da ngay bës ok soo bësee ok après ngay taaxirlu nga xaar les fii nag dañ ci expliquer expliquer bu rapide yow ñëw nga fii su fekkee wiif bi sa kër la nekk wiif bi kenn mu sa koo changé yow fii boo ñëwee eh. am nga possibilité nga bën nga bind admin a minuscule d minuscule m minuscule i n tout minuscule admin ngay daal di bind soo ko bindee après nga daal bës s'identifier jàllul nga xam ni kon mot de passe bi bi nekk ci ginnaaw wifi bi la comme boobu ñu leen encadré bii lay doon ci ginnaaw wifi bi suma gars yi bàyyi leen ci xel bu baax les gars ndax ñu bëri dañu poser question ci bii nii su fekkee yow def nga bi nekk ci ginnaaw wifi bi jàllul nga xam ni kon dañoo changé mot de passe dañoo changé mot de passe bu suma gars yi kon ñun dañ koo changé moo tax dañ ñoo def suñu mot de soo bësee stratifier ba pare comme fii ci page bii nga daan ñëw après ba ñëw fii nanga def da nga ñëw ba fi ñu bind la réseau local bu ñëw ba réseau local ba pare da nga def yaa ngi xaar ba ñëw comme fii ñëw na ba pare ñëw pare da nga ñëw ba fi ñu bind la WLAN foofu nga ñëw WLAN nga daal ñëw ba ñëw WLAN ba pare da ngay def fii da lay indil deux possibilités comme fii gis ngeen. boo ñëwee lii la lay lii la lay bindal ñaari la lay indil boo ñëwee da ngay tànn da ngay tànn ba fi ñu bind la configuration SSID du WLAN fii nga dara bi moom lépp bi nekk suuf soo ko bësee suma gars yi bu da ñëw ba fi ñu bind la montrer le mot de passe après nga koy bës soo ko bësee suma gars yi vous le le mot de passe est là le mot de passe est là comme suma gars yi assuré tey jàkkaarloo dañ leen jàppale bu baax a baax a baax. bii ñoo nag comme liñ leen ko waxee rek moo nekk lan nan ngay def ba sa wifi kenn du ci connecté daal di benn personne du ci ko. ñoo ngi leen di ñaan bu fekkee vidéo yi neex na leen nga bës j'aime bi bu fekkee abonné go nga bës subscribe après nga daal di bës touche de notification bi ngir nga mën a am bépp vidéo buñ yees buñ dugal jaajëf.